ngeen jëf mbokk yi yéen ñi sax taamu di seetaan seen site internet mourides point info tey dañuy dikkaat ak yéen fii ci waajtaayu tabaski gis ngeen ni leen ko taamu di leen ko defale dem nañ daral dem nañ marché Ocass jaaykatu dem nañ yi dem nañ ba ci borom puus puus yi bàyyiwun téyéri bàyyiwun ke tey na ngi fii Touba Daaru Xudoos fi nga xamante si mooy marché Daaru Xudoos marché bu mag bi ñu fas yéene indi li nga xamante si mooy jaaykatu ndugg mi ça va soxna si maa ngi lay nuyu. ça va bien soxna si maam Fatou Mbacke. soxna maam Fatou Mbacke ñu mel ne dañ laa fekk fi nga xamante ne si mooy marché Daara Khoudoss ngeen dangaa jox sa pan di ndugg ni maa ngi doon laaj ba xam ndugg mi naka la demee fii ci marché Daara doos ndax yokk na wala yokkuwul. waaw ndugg bi moom vraiment moom xaw naa cher trop pomme de terre bi ñu ngi ko xooloon avant. mi ngi woon wàññeeku mais après tabaski bi dañoo augmenté prix yi te loolu c'est pas normal vraiment mënoon nañoo bàyyi qualité bi ni meloon noonu parce que tamit ñu jàppale waa ñi mais bàyyi ba événement bi ñëw tamit ñu koy yokk loolu moom c'est pas normal fi mu ne nii kilo sa kilo pomme de terre mi ngi jël kilo 800 am na ñoo xam ne sax 900 lañ koy jaayee. ah soxna maam Fatou Mbacke loolu cher na macha allah te pomme de terre ji dafa cher trop maanaam mën na maa ndax soble si fan la toll moom tam exact. soble bi waaw ñun de kilo 450 lañ jëndee ba pare nga bëgg a jënd ndugg mais ça mais sant yàlla rek. mais sant yàlla alhamdulilah merci. waaw Abdoul Ahad lay Daara Khoudoss Touba. Abdoul Ahad lay Daara Khoudoss Touba tey jii waajtaayu tabaski ñoo la seet si woon fekk la fii ci marché Daara Khoudoss bu mag bi nga xamante si mi ngi ci Touba Mbacke ma bëggoon a xam ba xam naka ngeen dundee yéen ñi nga xamante si yéenay wàllu jaay wàllum yu sew yi wàllum poobar wàllum pomputeer pomputeer soble yëpp yéen a ngi koy jaay ñu bëggoon xam ba xam prix bi la moo tax ngeen yokk ko. waaw ñun nag loolu boo gisee affaire bi danañ jaaxal comme ni mu jaaxalee ñëpp ndax dañoo jékki-jékki rek prix yi nga ko jëndee daal di gonflé wu quoi cher trop prix yi nga jënd saako pomme dañ ko doon jëndee 8500 ñu jékki-jékki di la ko jaayee ay 13000 saako moo doon jëndee 15000 ñu la ko jaayee 33000 léegi nag il faut nga yokk sa ay prix léegi ñun bëgguñ ko noonu buñ sañoon bagage bi day yomb client bi man comme ko bëggee parce que ñun nit ñi dañu naan jaaykat yi ñoo ko ñu sikk tout le temps te ni nga ko jënd da ko mën a jaayee loolu moo tax nag waaye bu ñu sañoon daal état bi jàpp ci baax baax. mais bagage ni ngeen ko jëndee ak ni ngeen ko jaayee dafa seer torop sax dafa seer est-ce ngeen ci yokk tamit bariwul. non non non du ñu ñun si yokk lu bari yàlla xam na ne tuuti lañ ci teg ndax pomme de maa ngi ko jëndee lan 29000 francs ma taxaw ma 580 te maa ngi ko jaay 800 xam nga pour cent wa bobo pomme terre mi ngi jar 14000 fiñ ñu mi ngi jar 33000 liñ ci yok 100 la mo tax. essence bi man na xam kilo soble fan la tollu mo wa si soble mi ngi doon jar 225 250 pour l'instant ni 450 ko jël ci bascule di ko jóg jaay 500. andu bi mom pomme terre serna soble serna mom wax deug yalla buñ ko mënon a wàññi moom danañu gën lool waaw. wax dëgg mais soble si ak pomme de terre ji rek moo cher yeneen yi ndax cher na wala cher poobar yeeg laaj yeeg yooyu. poobar yeeg laaj moom seerul moom. soble si moom pomme de terre bi daal moo seer ak soble si moom. même dugub tooy bi tam seerul. oignon yeeg yooyu tamit seer na moom wax dëgg yàlla moom yooyu moom seer na lu ci tooy daal moom seer na wante kim ma si laaj yeeg poobar yeeg yooyu moom yomb na moom. mu mel ni jafe-jafe bi daal mooy pomme de terre ak wàllum soble diggante pomme de terre daal moom moo cher trop. moom moo seer moom moo seer ko mënoon a daal danañu gënal bu ko defee sama aawo yi ca kër ga kontaan. sëñ bi tur beeg sant bi. man maa ngi tudd Abou Madiane. Abou Madiane na tey ji waajtaayu tabaski ñoo la seet si woon fii ci Touba marché Darou Khoudoss bu bi nga xamante ne si marché bu mag bi nga xam ngi ci Darou Khoudoss laaj ba nga li nga xamante ne si mooy wàllum dugg mi pombu teer ji ak soble si cher na cheraay boo xam ne jigéen ñi ñëpp a ngi koy jàmbat ñu bëggoon a xam ba xam lan mooy solution bi. waaw seeraay bi de moom daa mel ni si baykat yi la si moom waye fi nduuni sant yàlla rek ndax amna mom amna am na bu baax jigéen ñi fi nduuni jàppoon na ni dana jar kilo 1000 francs te fi nduuni ñu ko jaay kilo 800 diko ko tataay kilo 800 mais kilo 800 dafa cher pomme tey mi ngi jar kilo 400 tay mu ñew kilo 800 tabaski gi ñoo ngi def ko kilo 800 soble essence bi fan la toll soble fi nduuni ñu ko jaay 400 400 waaw pomme tey 800 waaw keroog ci bis ba ku la ko mel ni yéen jigéen yéen góor ñi ngeen di ndugg est-ce que gënul yomb ko jigéen ñi di ndugg parce que dañu jël jigéen ñu bari mais dañuy ñaxtu metti loolu xamante si ci ndugg mi metti ak cher gum cher ci ñoom mais yow yow dugg euh, muy dem di indi tey si di ne la marché bi nii la demee rek waroo ko mën a jàngat xam nga da ngay xool ci sa bopp ndax man yàgg naa ko def parce que damay vacances su ma jaaree fi rek man dugg yóbbaale leen Diop bu Daaru Xudus waa tey ji waajtaayu tabaski ñu la fekk ci fi di laaj li nga xamanteni ci mo cher ci walu marché bi pomme terre ji soble ci ak yu sey fan la toll wa pomme terre bi sa bi ni kilo mo ngi jël 800 soble moom 400 lay dem loolu lan moo tax ngeen yok ko kilo soble mi ngi daan jar ay 200 225 tay ngeen def ko 400 pomme terre mi ngi daan jar ay 400 ngeen def ko 800 tay lan mo waral loolu non pomme terre mom maam duñu ñoko yok mom ñi ñu jaay ñoko yok yokk sa bi ni pomme terre dafa am yu yàqu yooyu te instant boo génnee yu yàqu yooyu noonu da nga ciy yàqulee cinq kilos ak yooyu noonu te daanaka boo ko ci génn doo ci génn. mais li ko jëndee ak li ngeen koy jaayee nii est-ce que différence wul lu bari. non daanaka bi daanaka ñoo ngi koy jaay ñoo ngi koy jëndee ay vingt cinq mille te vingt cinq vingt cinq mille lañ ko jëndee daanaka sax waaw boo ko jaayee daanaka ay trente cinq mille nga ciy am ak yooyu noonu. mais gis ngeen ni daal séeraay moom du ci yéen. non bi du ci ñun te dafay dafa manqué boole ci. daanaka benn saako xam nga dañ ciy soxlay saako yu bëri waaye benn saako nga ci am benn saako bi rek maanaam day yàqu-yàqu boo xam ne maanaam 5 kilos ak 6 kilos nga ko ci génne ngeen def mbokk yi seen waajtaay tabaski nii la dikkee woon ak yéen gis ngeen liñ leen jot a indil lépp nga xamante si moom lañ leen tegal fii nga xamante si moo ci table ji dem nañ ci jaaykatu tissu nga xamante ne si mooy marché Daara Xudoos si marché bu mag bi indi leen li nga xamante si mooy wàllum pommeteer ji ak soble si li nga xamante ne si moo wàcc tabaski gi seen waajtaay tabaski nii la dikkee woon ak yéen ñu ngi leen di jox dig dajabe beneen yoon ci beneen numéro merci beaucoup encore une fois et bonne fête de tabaski